boo dafi daan nekk di xeex di dóorante léegi nag booy dala naan xeex wu ma dóorante wu ma dama lay nax daan la day indi doole xoolal moog Siteu waaw moog Siteu métti waayu combat bu métti loolu la defatut loolu loolu la defatut kii risimil na la ko Sarko Sarko léegi ah. day dox ci bu maayanu booy signature contrat li mu lay wax bu ñëwee loolu lay def ba pare day ñëw day bëre cokaas la ci xeex dem bëre ak boo xoolee ni mu daane bàyyi mu doon bokkul ak ni mu daane mbay gu gi. bokkul ak ni mu daane booy bi. aada faas ak kii rek la bokk na mu daane. parce que même action la mais kii nii dafa génne feneen. mais ñaa foofu toon foofu noonu moo doon songi ba pare ñu remplacer ko mm, merci bokk loolu laa lay wax ne c'est que Zarko moo tax ma ne la am na combat la ratifié boppam ci ama ne ama neex maa ngi lay waxaat loolu Babacar de <laughs> parce que bi muy songi bi muy songi dafa tàgg moom da yóotu rek def nii waa ji ko xoolal fa kombaa bi xoolal rek bi muy songi waaw bi muy songi dafa ñam nag demal grand salle bi muy xoolal bu song rek dafa yóotu loxo yi rek tag loxo yi ci ndiggal waa ji waa waa ji suufu ko waaw xaw nañoo laali tuuti ñoom mais boobu sar ko song boobu bàyyi xel dara mhm. qui est très que bi muy ñëw. Mhm. la mu yaakaar dafay fekk tànk ba fekkatu ko. fekk ko ba waaw genre da ko kii da ko da ko rocci loxo yi rek. mooy song da ngay ci waa ji. te gis day. booy ñëw mu day doon bëri mm, mu def nii dëgg la booy ñëw tànk ba nekkoon ci kanam da koy jënd te te kër ñu bari boo leen di dóor dañuy daw génn def benn paa ci ginnaaw mais xoolal moom boo sànnee kurpeñ da koy fil day taxaw fi mu taxaw paare ko. mais bu ñu la sànnee kurpeñ nga daw arrière kon bëggoo doo def dara. Mm-hmm. boo dawee génn doo song doo def dara. mais day paare ba pare xool li muy def. léegi boo forcé nag mu juróog yow song la. dama ne gis nga saar ko mii nii kii li mu wax nii moo nekk booy bu ñu ràngee mu daan leen ñoom ñëpp. niru na ko de. ëpp ñu ko doole te dalee dalee ci maay la leen. dafa ëpp lan xoolal moom ak moom ak Sa Thiès du wër na ndomba Sa Thiès ëpp la tax daanu ko mais léegi dafa tee xool li muy def bu baax xoolal booy buy song rek dafa yóotu loxo yi rek ah. waa ji du moom song ko plaqué ko ah, waaw mu ngi baax na le grand ah du ma ne du ma ne Bébé Diène mënu ko daan booy bëri mag ngay gëm mënu ko daan de mais il faut ñu entraîner préparer Bébé Diène de lu leer laa la wax Baba waaw ah, il faut ñu préparer ko euh, mais nag comme Kayre nga fa xanaa dina dina xool ah di yoon dina xool ni muy war a bëri waa ji ah. Ah. am nañu amati dañoo moom day am nañu xew de te xanaa xanaa waruñu nangu Sarr ko dug foofu tegale leen ñoom ñaar yëpp noonu na état bi nu ko bëgg a prouvé. waaw Zarko nag dafa mel Dakar la bëgg jël nag toxal ko Grand Yoff. waaw ndax Medina am na fa ñetti victoire. waaw nañ ko nangul nag fi mu budul Dakar yi nañ jël genn wàllu Dakar waaw daa yóotu yóotu.